juróomeelu xaaj bi ci juróom benni xaaj yi juróomeelu xaaj bi ci juróom xaaj yi bokk ci ab jàngu taxul nit ki mucc kenn du juddu itam bokk ci mbooloom yàlla yàlla sàkk na kenn ku nekk ba noppi may ko niki aadama sañ tànnal boppam kenn ku nekk mooy nangul boppam ne deewu yéesu fay na ay bàkkaaram bàkkaarkat mënul musal moromam te ñun ñépp bàkkaarkat lañu jëkkër mënul musal jabaram donte taalibe kirist la jigéen ji mooy tanal boppam li muy doon bu xale màggee ba ne bàkkaarkat la moo war tanal tànnal boppam nangu wala bañ a nangu yeesu mbind mu sell mi nee na ndaxte ñépp a yàlla ñëpp bàkkaar ba jotetuñu ndamu yàlla waaye ganaaw kirist yéesu dee na ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu ci dara rom saar ñett aaya ñaar fukk ñaar ba aaya ñaar fukk ñeent léegi ma laaj leen juróom ñeent naka la nit ki mënee mucc war na nangu ne bàkkaarkat la nangu ne deewu yeesu fey na ay bàkkaaram su ko defee dina mucc ndaxte feyees na ay bàkkaaram fukk su ab nit bokkee ci am mboolam ñu gëm wala ay waajuram doon taalibe yeesu ndax moom itam taalibe la déedéet bokk ci am mbooloom ñu gëm taxul kenn mucc te nit mënul juddu doon taalibe yeesu nit ku nekk mooy nangul boppam ne deewu yéesu fay na ay bàkkaaram